waaw mbaaw bu baax maa di baalu ak ñoom ñëpp gis naa ñu jàpp ci combat maa ngi sant. Eumeu Sène. Ah, ah. ngay ndaanaanu bërikat. Hmm. barkalla macha allah. loo mës a dégg waa Pikine indi nga leen ko. Hmm. combat bi a sa combat bopp la. waaye jël mbër moo xam ne dafa jóge ci defet ba pare sa première sortie est-ce nekk pression ci yow. mooy du la wax rek xam nga tey ñam naa victoire ñam naa defet noggutu nañ ma ci làmb xam mu nga ma ëpp combat mais combat yu suñu waxee suñu waxee rek te yàlla tax maa ko reñee ma seen ba bu jógee rek Pikine yëpp jóg ànd que nit mënoo weesu nit tey ñun amuñu lu tey lu dul amuñu tey lu dul supporters yi jàmbaar xaalis boo yoree ay milliards mun a satisfaire ñëpp munul nekk mais soo baaxee mën nga satisfaire àdduna waaw baax yàlla la maa ngi tamit aussi waa Gambie bu baax a baax a baax waaw ma Modou Kara sama xarit maa ngi koy nuyu di aussi waa jeel bi yëpp xam nga jeel bi yëpp maa ngi leen di nuyu jeel yëpp maa ngi leen di nuyu xam nga ñoom ñu ngi toog di ko seetaan en direct muy naa muy 100 ñëpp rëbës tout ñëpp xam nga sécurité bi tamit aussi aw ma seen fay parce que tamit aussi li lañ mën a réew mi hmm. paa bi su déeree du wax ci moom eh, waaw incha allah mën nañ bëri deux jour fu mu nii mën nañ bëre incha allah baax na incha allah yàggatul dimanche la rendez-vous le 28. Ah, ah nga nekk adversaire boo xamante ne en général comme ni nga ko waxee sànq combat yi gën a métti yaa ko bëri. Ah. da faral di encaisser donte ni sax am na combat yoo daan yoo xamante ne tu encaisses beaucoup de coups. Ah. xeex bi ngay bëri Modou Lo nga xamante ne day bagaar lu bëri alors wàllum xeex bi lan nga ko préparé. man nag aw ma di wax. di tokku nit. may ma waxee. parce que kon nu may xare tout le temps suñu papa dañuy seetaan kilifa yi dañuy seetaan suñu doom yi tam aussi même chose kon référence lañ kon lépp lépp lu ñuy lu ñuy wax rek duñ def lu rafetal suñu kàddu parce que tey aussi dañu war nek exemple euh, exemplaire si dëkk bi lu dëgg tey euh, ah, tey luñ def lu dul jox gars yi rendez-vous le 28 mais ku tagg sa billet incha allah doo ko waaw liggéey rek. parce que combat bu nekk ak lu mu laaj waaw liggéey nañ bu baax a baax. d'abord ñu ngi nuyu euh, maa ngi nuy Dansokho ah Dansokho jàpp na ci combat bu baax maa ngi ko nuyu. waaw loolu lépp euh, combat bi ko waral rek parce que kon nu may wax rek xam nga jàmbaar at na mu solo ju dëgg life dafa gàtt ñu ñëpp ay doomu ndey lañ suma la ndam lu du génn Sénégal mais dafa nekk combat boo xam ne. samay supporters samay fans waa Pikine ñoo ko soxla kon combat bi daf ma ñor juste loolu la mais du leneen no ah. no seetlu ma ci loolu quoi parce que aw ma habitude boobu mais daal en tout cas liggéey naa di xaar le 28 yàggatul dimanche d'ici 15 jours la di ñaan yàlla suñu borom may ma ndam jàmm yàlla bu xeebu laa jàmm yàlla bu xeebu laa mais maa ngi tàllal loxo Sénégal gi yëpp kilifa diine yi kilifa aada yëpp maa ngi leen di tàllal loxo ñu yokk ma ñaan parce que jaamu yàlla bu xeebu laa maa ngi nuyu maa ngi ñaanal suma doomu ndey suma rakk Tyson numéro de ak Nguer seen combat yi ñu yàlla may leen ci ndam surtout Tyson numéro 2 ak Nguer maa yàlla ñu daan jël bu seen wicc ba benn werante incha allah. bon c'est vrai que ni wàññi mais ñu bëri ñu xamul ne yàgg na ma yokk poids mais nag euh, sant yàlla bu baax combat moo laaj pare nañ ko lépp. combat bi amul lenn lu ñu bàyyi pare nañ ko ñu ngi tàllal loxo Sénégal gi yëpp di tàllal loxo kilifa diine yi kon nu mu koy kilifa aada yi ñu yokk ñaan parce que làmb moom defal li nga war a def yëpp. mais ndam yëpp yàlla suñu borom la mooy xool ku ko neex mu cokk ko. Mm. defaluñu yàlla lu tax tey mu defal ñu roi des arènes. Mm. defuñu ko mais ñu koy sant yàlla parce que xëy na wala ñu jàpp ni yàlla daf ko tuddoon ni dañ koy doon. Mm. maa ngi ñaan yàlla na mu yàgg fii te tam aussi lépp lu ma mën. lépp lu ma xam dinaa ko def pour waa des arènes incha allah des Pikine ma téye ko sumay rakk. sport bu boolewul warut a tàkkale. ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. zéro violence dañuy ñaan parce que tey waa parcelle am nañ mbokk Pikine waa Pikine am nañ ay mbokk parcelle te bu ñu dajee ci xew rek ku ci nekk ñu wax la ak sa morom li bokk da am xam ne amul solo. bëgguñu kenn am fa benn blessure. nañ ko def ci fair play Modou Lo suma rakk la du dëgg lamb la rek moo ñu boole ay xale lañu dañ ci tollu di koy def ëllëg tamit aussi ñuy ànd suñu doom yi mën nañ takkante wala mën nañ mën nañ ci ànd mais nag lamb nag lamb dafa war a saf sàpp du dëgg voilà loolu la mais zéro violence Eumeu ko xam xam ne ni ci jàmm rek lay dox man sama bët yi ay bëti garmi la du ma xool lu ñaaw sama noppi bugguma ci dégg lu ñaaw sama laamiñ bi bugguma ci génnee lu ñaaw parce que àdduna amul solo nit nit rek ngay mu mënoo weesu nit. maa ngi tàllal loxo nag Sénégal gi yëpp. di ko ñaanal jàmm di ñaan yàlla sa mbokk jàmm. kàddu gu mujj kàddu rek mooy Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. di woo Pikine yëpp sama rakk Boy Niang naa nu ma taxawoo maa ngi koy félicité di ko encouragé. Ama Balde maa ngi koy ñaan moom combat suma rakk la ñu ngi koy wax ne ko xam nga. affaire yaa ngi ñëw day baax ñu koy wax li américain noo peen noo geen balaa moo neex foofu métti. day Pangom. waaw di Sénégal yëpp.